gis ni à l'inverse mu am beneen forme de migration bi nga xam ni xale yi dañ ko jël nekkul nag guléet nekkul li nga xam ni lu bees la amoon na yàgg na am mais dañoo constaté depuis un certain moment demoon na bi nga xam ni sax taux bi dafa wàccoon mais léegi xale yi dañ ko jëlaat ak doole sax léegi ñu nag ñu xool contexte bi ñu ne war nañu nag bay suñu waar bay suñu waar dem si gox yi nga xam ni moo ëpp ñu fay jógee pour dem ñu waxtaan ak xale yi ñu waxtaan également ak waajur yi. ndaxte suñu société am na ay pesanteur donc loolu xam nañ ko ñaare yi tamit dafa nekk ay xale yi nga xam ne tamit dañoo xaw a désœuvré maanaam toog nañu gisuñu amul liggéey amuñ xëy loolu tamit da koy expliqué mu am tamit déficit d'emploi. alors ci loolu nag ñu ñëw waxtaan ak xale yu nee leen ñin ñëw nañu ñin waa GMD. ñu am nag ay koppar ak ay financement ñi leen jagleel. pour que ñu mun a waxtaan nañu nee leen toog fii tekki fii mën a ne want nan lay nekkee wante pour que loolu moo am il faut ñu jox xale espoir espoir boobu nag mooy dañuy ñëw lekkatu neen naxul béy ñu ne leen mun ngeen am dara mais da di jege suñu bureau d'orientation d'accueil de suivi ñaan bawos ñu mun leen tegtal leen xamal leen nak ngeen di mun def su fekkee da ngeen bëgg dem tukki ci yoon wante tamit nag ngeen mun def pour que ngeen mën a am ay formation yi leen di permettre ëllëg ngeen mën a am yenn formation yi yenn yenn financement yi pour ngeen mën a mënal seen bopp donc ñu teg disposition boobu ñu lancer appel à projet à partir du mois d'avril mais ba juin ci quatorze régions du Sénégal yëpp ñu déposé léegi nag jot nañ fi na kii yëpp dépose euh, dépôt yëpp ñu ngi nekk ci phase de dépouillement alors budget global c'est un milliard ce qui fait que chaque région ñu jagleel ko 60 millions ñu commencé ci lii ndànk-ndànk lentement mais sûrement ñu monter en puissance